onze billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm bu baax a baax di wax asalaamaaleykum kilifa diine kilifa aada yi ah, di leen nuyuwaat fi ñu leen daan nuyoo rek seen émission jataayu transport ak mbay Badiane tey nag télé bi dafa déplacé wu ñëw ba espace Sénégal sarwis waaw ok Euh, def ay déplacement am tey ñëw ba fii pour def ak émission ku ñuy wax Momar Thiam euh, di ko nuyu moom Momar Thiam ndax Momar Thiam passe-partout la ndax dalal nañ ko ci rajo bi fan yee bëgg a def ak waxtaan ak moom ci télé bi euh, nit ki di amee permis formation yi ngay def ah, naka la formation yi di demee ndax région yi benn région la yem wala benn département la yem wala yëpp la yem kon Momar ñu ngi lay nuyu. ñu lay nuyu Momar Thiam. jërëjëf euh, sëñ Bay asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, maa ngi nuyu euh, ku si nekk si turam ak santam du nuyu waa Sénégal du nuyu téléspectateurs yi Leeral TV du sant équipe Leeral TV bu effectué déplacement bi fekk ma fii nii espace Sénégal service bi Mbour pour sekk ak man instant ya waxtaan jëm si activité yoo xam ne société bu ma jiitee muy African Promising Technology moom lay def jërëjëf waaw kon Momar ñu ngi lay nuyu waaye Pa Omar balaa may jox euh, Momar question damay nuyu sama mbokku téyër bi nga xam ne moo ma solal nii muy Seex Ñas seex bi nga xam ne Kaolack la dëkk ñawal ma ñaw bu rafet bii euh, may jàllale wàlle numéro téléphone am 951 44 33 moo ma solal lu rafet lii ma sol kon Momar ginnaaw bi nga nuyoo dañ lay jaajëfal Euh, di la laaj Momar comme da ngay yëngu ci wàllum formation damay jëkkee ci permi yi Momar kuy wut permi fan ngay jëkkee yan dossier ngay jiital pour mën a am permis waaw jërëjëf euh, sëñ Mbaye euh, wut permis moom dossier yu xam ne moom la nit ki war a wut yomb na mun naa ne yombut yomb na parce que mbiri permi Euh, kenn kese moo am sañ-sañ joxe ko ci Sénégal kooku la ñuy wax direction des transports terrestres euh, ñun ñu ci yëngu yëpp dañuy yombalal nit ñi waajal leen préparer leen ñu dem instant yi foofu noonu pour mën a passer examen code ak examen conduite léegi nag direction des transport terrestres boobu noonu nag lépp lu jëm ci mbiri permis da nga ko xaatim dugal ko ci benn euh, document bu ñu naan code de la route code de la route boobu noonu nag moom mooy wax tamit nit ku xam ne moo war a jëfandikoo voie publique bi yan yoon la war a jaar pour mun a am permis dossiers yi nag yoo xam ne nit ki moom la war a wut pour mën a am permis dafay wuutee nag si permis yi ndax dossiers yi mooy benn nit ki war na am certificat médical bu xam ne médecin chef régional moo ko war a jox nit ki war na wut groupe sanguin nit ki war na wut certificat de résidence nit ki war na wut photocopie carte d'identité légaliser nit ki war na wut carte photo nit ki euh, war na wut tamit euh, Euh, su mu nekk Fatou mooy document yooyu noonu la war a wut léegi nag mu wutee si permis nag mu am ay at ay at yoo xam ne minimum moom la nit ko war a am pour mun a passe permis boobu suñ fa yegsee nag si différents permis dinaa nekk yan at la nit ko war a am pour mun a passe permis boobu noonu jërëjëf waaw Momar euh, ginnaaw bi nga wutee dossier yooyu ba pare pour mën a wut permis ndax permis dafa am ay pàcc-pàcc na parce que mën nga ne poids lourd poids sa transport en commun ndax yëpp ñoo yem ay dossier yooyu wut waaw permis yëpp ñoo bokk dossier yooyu wut mais nag nekk permis yëpp nag ku nekk da ngay ñëw jàll instant mun ko def. direct waaw soo jëlee pois léger il faut nikki am âge minimum 18 ans. Mhm. soo jëlee lu naan transport en commun moom la ñuy wax catégorie C ou bien catégorie poids lourd mhm. moom la ñuy wax catégorie C ou bien C1 nit ki il faut mu am minimum. 22 mhm. ans. su nekkee nag lu ñu ñun lu ñu woowee transport en commun mooy catégorie D. kooku nit ki il faut mu am permis ba pare. ba permis am a il faut mu am une ancienneté minimum de un an teg si tamit moom ay atam toll si minimum vingt cinq ans mu doog mën a ñëw passé instant catégorie D boobu lañu ñu woowee transport en commun voilà loolu daal moom mooy wax mbir permis loolu am na solo parce que boo gisee ñuy def déplacement yi kenn ku ci nekk rek wàll wa nga féete dañuy ñëw laaj la ci sa xalaat nga wax ko ndax dañuy gis nit ñi di wut permis di ko wute anem wu nekk léeg-léeg sax Momar damay dégg ñu ne permis dafay am permis yoo xam ne faux la euh, ndax loolu yow mi nekk ci secteur bi di nga ko gis ci sec ci secteur bi wala doo ko ci gis parce que dañu ne dafay am ñoo xam ne dañuy toog encore fi ñu toog la ñuy toog du ñu passé permis ñu indil leen permis jox leen ko ndax loolu xel nangu na ko moomal. waaw foog naa euh, dañ koy fàttaliwaat rek na waxtaanoon neen lu mel nii si émission rajo bi comme noo ko fàttali fàttalikoo. Mhm. xam nga nee naa la mbiru permis dafa am foo xam ne foofu leen ko jaarale mooy direction des transports terrestres moom moo ko joxe mooy natt nit ku xam ne moo ñëw ne dama bëgg permis mu natt si xam-xamam ci code de la route su ko su ko matalee mu ne ko passé nga examen code su paree mu natt xam-xamam ci mbiri dawal muy conduite su ko jàllee mu ne ko passé nga conduite kon su nekkee nit dafa jaar ci beneen yoon te ñëwut mën a am permis kon waa direction des transports terrestres lañ koy laaj. voilà parce que ñoom ñooy évaluer candidat yi. Mhm. voilà parce que xam nga li tax ma laaj la loolu dama bëgg rek mu gën a leer ndax doomu aadama yi dañu bari ay pexe nit ñi ci boppam ñoo bari ay pexe parce que man ah, am na année boo xam ne kër ga ma dëkkoon booba man maa ngi doog a am poids léger kooku noonu xamul sax nu ñuy nu ñuy nu ñuy dawalee oto mais dañ ko indil permis moo tax may laaj loolu parce que doomu aadama dafa bari ay pexe. kon dañuy jàll feneen Momar euh, ndax euh, seen seen njàngaleem oto ci oto école yi ndax nit ki bu ngeen koy jàngal oto pour mu mën a mu mën a dawal euh, ci yan anam ngeen koy jàngale pour mu mën a dawal ba maîtriser tali bi cent pour cent waaw parce que dañuy wax ne lu ci bari oto école yi dañuy jàngal dañuy jàngal élèves yi dawal mais cent pour cent du ñu mën a dawal waaw xam nga tamit mbiri dawal moom yow mun ñun ñu nekk si tali bi métier boo mënta gis rek noo si gën a yàggee rek nga si gën a adapté wu te tamit su nekkoon tamit cëri auto école yi jàngal nit pour mu mën a dawal cent pour cent la nit su paree si auto école du jar muy bind si ginnaaw otoom débutant mooy ne dafay mokkal base yi dafa am lu xam ne si kaw tali bi la au fur à mesure ak ay réflexe mu si adapté wu mais nekk ki dinañ ko jàngal mu xam lu yoon tere jàngal ko lu xam lu yoon digal mu xamee panneau yi mm-hmm. mu xam tamit lan moo dox si diggante ak cëram ak alkaate yu nekk si kaw tali bi mu xam fu mu war a doublé ak fu mu warut a mu war a xam tamit fu mu war a taalee ay ay ay lampe ak fu mu ko war a taalee jàngal ko tamit instant mu mun a def kërnoo mun a dawal mun a dawal yóbbu oto fenn ak tamit freiné mm-hmm. en fait mun a def benn conduite bu xam ne niveau acceptable mais au fur et à mesure ngay nekk si tali bi si ngay gën a mokkal si ngay gën a par exemple kon loolu daal laa si ne kon nit ñu bëri nag dañuy jaaw da ngay xool métier bu si nekk nit ko da ngay presque métier bi rek mën a def ko ko xam ne moo si yàgg dix ans vingt ans dafa am tamit circulation da nga koy miin da ngay gis chauffeur boo xam ne bu tàmmut a génn sax ak chauffeur buy génn du doon benn ko xam ne chaque jour agglomération laa yem ak tamit kuy daw chaque jour du voyage longue distance seen ñaari réflexion yi du par exemple du doon benn du doon benn mm-hmm. kon école école yi loolu kese laa si mën laa leen mën a dédouaner mooy ñun ñuy jàngale ci mbiru dawal dañuy suñu métier mooy mbiru code bi mm-hmm. ñu jàngalee niñ bi code bi mooy lépp lu xam ne jàngal ko code bi code bi nag juróom-benn objectif rek la mm-hmm. jàngal nit ku xam ne moo war a nekk ci voie bi mooy yoon yu xam ne dañ à la disposition des des gens ñu mën a jëfandikoo yoon bi mm-hmm. ñu xam nan lañ si comporte woo nan lañ ci war a taxawee ñu xam tamit nan lañ ko nan lañ ko war a jëriñoo ñu xam tamit lan mooy seen ak xam lan moo nekk seen i yelleef ñu xam tamit nan lañ mën a jëriñoo yoon boobu noonu ba duñ loor nit ñi te tamit duñ sene ñeneen ñi mm-hmm. juróom benn yooyu noonu kese moom la ñuy préparer candidat après ñu ngi jàngal leen dawal loolu nag moo ci ëpp maanaam da ngeen leen di jàngal pour du ñu lor doomu aadama yi mais booy xool finalement ñi ngi jàngal oto daanaka dañuy lor doomu aadama yi parce que am naa permis lu ma neex laay def pourtant ba ngay am permis bi sonn nga ci lor pour am ko mais dafa mel ni amin wi moomar dafa yomb dafa yomb lañ ca war a laaj laajuñu ko wala nañ euh, ca war a sonne sonnewuñ sonnewuñ ko ni ba tax na tey nit ki bu jógee oto école jël permis def ci poosam jàpp na ne rek moom lu ko neex war na koo def parce que parce que ki am maa umi mi bu amee permis pa seex Omar mi am permis ñoo yem ñoo yem mais kenn ku ci nekk la war ci tali bi dafa mel ni fi mu toll nii amatul loolu it cent pour cent bu ngeen di jàngal eh, élèves yi est-ce que loolu di ngeen leen di wax ñu di ko moytu. waaw xam nga tey eh, eh, sëñ Baye <laughs> soo ba léegi yaa ngi joxoñ auto école yi auto école yi malgré même bokk ma si auto école formation laa nekk. mais mais sorewul technique nday nday seex la dinaa si ñëw mais tamit dinaa leen layal parce que dañuy wax tamit heure bu accident amee ñu ne chauffeur yi chauffeur yi chauffeur yi Sénégal jargon boobu leen commencé nii quoi xam mbir mi. suñ ko bëggee yombal dañu am dafa am nu ñu koy organiser dafa am kenn ko xam ne waajal mooy nekk métier mais joxewut ko xam ne moom mooy saytu xam ni ku si nekk na neex na man nu ma neex laay jàngee mais ku xam ne moo am cër ñu ne da nga ko toog jox lu juncuwaay ne la ku matul lii bu ko bàyyi mu jàll kooku foofu la ñuy xoolee foofu la jafe bi nekk su nekkee kooku jot na permis bi te waru ko jot ñu ne tamit kii tamit dafa am fu ñu koy nattee si mbiri dawal ñu doo ko jox permi ne mun na dawal su nekkee jox nañ ko permis tamit te te te a dawal ku ko natt kooku leen war a xool instant par exemple mbiram ñaareel tamit ñu ne kooku bu mu joxee permis bi tamit dafa nekk si tali bi ñu yëkkati ab alkaati teg ko si tali bi ne ko na ngay saytu ku deful lu dul yoon nga teg ko si yoon kooku su nekk si tali tamit di def na ko si dul noonu tamit ñu koy seetaan ñu nekk si tali tamit leen war a waxal dañuy bien kon loolu mbir mu si nekk dafa am ko xam ne mhm. ay niveau la mhm. ñun suñu niveau fu ñu yem mooy waajal suñu waajee préparé jàngal mais su nekkoon dañ dam joxe ñu ne ah auto école nu ñuy parce que ñooy joxe permis mais nee naa la permis kenn rek moo am cër joxe ko nga nekk auto école ak koo munta doon da ngay dem direction des transporteurs passé examen code mm-hmm. ñoom ñun saytu la nu nga ko bëggee nag ñoom ñoom ñoo lay xool ba mu doy leen ne la jàll nga du auto école koy wax mm-hmm. ñoom ñoo koy wax mm-hmm. suñ la waajalee tamit conduite tamit dàq la dawal si Sénégal ñoom suñ demee ne mënoo dawal da nga ñëw passé waat ba mu doy ñoom ne mun nga dawal ñoom ñu doog la jox permis kon foofu di question chauffeur bi parce que nekkul auto école kese joxe permis nit yow mii mën nga jugal sa bopp dama jàngal sa bopp auto oto dama natt sa bopp. Mhm. parce que ñun loolu la ñuy def parcours dañu waajal nit ñi nit ki demal boppam présenté wu examen code ñu laaj ko ay question yu jëm si mbiri examen bi su ko tontoo ñu ne ko jàll na ñu pare ñu jàngal ko dawal mu dem defa ji examen essence conduite. su ko matalee ñu ne ko mën ñu jox ko permis mhm. waaw loolu daal lay mbir mi di deme ah am na solo am na solo léegi Momar ma ah, xam am na lum lu ma la laajoon léegi dama la koy laajaat fii ci télé bi àdduna bi yëpp di ko seetaan muy wàllum ah, visite médicale ndax visite médicale yi léegi eh, man dama cee gis loo xam ne man Mbaye Badiane man jommi naa ndax bu ñu demee ba visite médicale nit ki war a wut permis dem fañ koy wute am ñoo xam ne dañoo taxaw ca bunt ba. boo ñëwee ñu ne la sëñ bi loo bëgg visite pas nga dugg def visite dañuy jël say ay 2000 wala sa ay trois 3000 dem wutal la visite sans yow ñu visite say bët loolu itam dama koo gis ci wisit ndax loolu it duggul ci seen secteur. waaw sëñ Mbaye mooy tontu moo la tontoon si mbiri permis yi tontu la ko si mbiri alkaati yi moom laa ko tontoo. xam nga réewu Sénégal. yàlla def na nu mu ko bindee lu si nekk rek yàlla def na ne état bu mu koy tënk bàyyi na si xel lu bëri est ce que xam nga ne instant visite technique technique pour permis hôpital principal sa mënu la ko defal. hôpital Fann mënu la ko defal. fii Mbour mënoo fi defee visite technique kenn kese moo am cër def visite technique si benn région bu nekk kooku la ñuy wax médecin chef régional moo yilif région bi yëpp. pour wane lu état lu mu fonk la. Mhm. su nekkoon nekkutoon lu mu fonk da koy jox hôpital bu nekk. wala jox ko centre médical bu nekk mu koy def tey waa Mbour yi nii suñ bëggee passer visite technique pour def permis dañuy dem ba cees mhm. foofu lañu fekku naan médecin chef régional kooku moo yilif hôpital yi moom moo la ñuy saytu moom moo la ñuy formé wo kon xam nga kon loolu noonu. Mhm. code de la route bu ñu koy tënk kon fi film visite technique am na am na fu ñu ko teg. Mhm. mais su nekkee lu xam ne dafa nekk rëkk-rëkk par rapport ku koy def. ñooñu ñu xam ne tamit moo nekk seen koor yi. la ñuy wax ne leen xoolaat leen seen koor am na ñu xam ne déjà. bokkun si ñu ngi koy xajamal xool leen yéen noo leen koy réglé. xajam na de. voilà Matar foofu xajam na trop. xajam na trop parce que euh, lu mu ci doon lu nekk muy passeport muy permis muy carte d'identité sénégalais bu ne da nga ko war a am mais rawatina permis bi nga xam ne da nga koy dawale oto euh, bu say bu permis bi jeexee ñu ne la demal wuti visite nga dem visite au lieu que ñu xool say bët. dañuy dem ay boo yu taxaw ca bunt ba xam nga di def ko liggéey loo loolu moom loolu moom doy na waar doy na waar Momar léegi damay ñëw ci say wàllu formation sa wàllu formation yi ngay def pour nga gën ñu koo leeralal yan ak yan ak yan la waaw alhamdulilah sëñ Mbaye question boobu noonu dinaa sawar a tontu bu baax a baax Euh, ñun société bu ñu jiitee mu ngi tudd African Promising Technology. Hmm. ñun mun nañ ne comme noo amee habitude duma ko woowee passe partout leen. Hmm. dañuy def formation yu bëri. mais nag suñu waxee ne dañuy def formation yu bëri xel war na ko mën a bañ a nangu ndax yàlla may doomu aadama mu mën a defandoor lépp. Hmm. mais soo gisee ñuy defandoor formation lu bëri nekkul ñun ñoo koy def den am ñun si lëkk lool. Euh, soo xoolee mbirum jàngale si Sénégal dafa am ñett ministères yu ko gérer mhm. benn bi moo nekk enseignement général benn bi moom moo nekk enseignement formation professionnelle et technique mhm. foo xam ne képp ko xam ne nga jóg pour jàng métier ministre parti lycée yooyu ñoo koy gérer mu nekk les lycées techniques mhm. ak les centres formation professionnelle et technique état nag def ci ay jéego yu bëri teg ci ay bànqaas parce que jàngale ndaw yeeg parce que dëkk nit ñi am qualification moo ko yor ba xam ne lu mel ni ay bànqaas yu mel ni 3FPT am. Mm-hmm. ay bànqaas yu mel ni instant ONFP mooy office national de la formation professionnelle. Mm-hmm. technique am. Mm-hmm. loolu noonu tamit même tamit jege ndaw yooyu noonu pour formation moo tax sa service bi espace Sénégal service instant yi am. pour mu nekk ay service de proximité. di permettre instant yi lu bépp lu xam ne tey ndaw nit ñi danga koy soxla. mu leen koy jege. ñun nag bu ñu jógee di def formation ñu ànd ak lycée yooyu noonu. ñu xam ne Sénégal yemul seul seulement si département yi. Sénégal tamit yemul Ndakaaru. Sénégal yemul si région yi. moo tax ñun dañuy def formation sur les quarante six départements du Sénégal. ñetteel bi tamit ñu xam ne Sénégal dafa nekk dëkk bu xam ne dëkk bu koom-koomam demeewul noonu la. te ku foo wax ne dëkk bi koom-koom demeewul noonu. nekkul ñëpp ñoo am sens mun a jàng jàng bu kawe. ñenn ñi dañu teel a bàyyi jàng parce que amul ay moyen dem di jàppale seen papa yi pour am lu ñu suturloo si kër gi. Mm-hmm. ñenn ñi pour des raisons culturelles jigéen yi dañu teel a bàyyi jàng dem sëyi. Mm-hmm. te ñoo ñëpp nag si askan gi leen bokk. Mm-hmm. APT teg na ne da la ñuy fekk ji. mu ne su leen fekkee ne yow ndaw bu xam ne danga nga teel bàyyi jàng jàng boo mënta tool soo bëggee jàng métier. APT mun na ñëw jàppale nga jàng métier. su nekkee da bëgg a def froid climatisation. APT mun na la jàpp permettre nga def froid climatisation. soo APT mun nga def élec mun nga def électricité bâtiment mhm. soo bëggee def installation panneau solaire mun nga ko def soo bëggee def instant yi maraîchage moom mbiri bay mun nga ko def mhm. yarum ginaar ginaar mun nga ko def mhm. horticulture mooy bay bu xam ne si ay table leen koy def mun nga ko def tamit soo bëggee jàng infographie wala multimédia mooy xarala yi wala informatique mun nga ko def mais yooyu ñuy wax ni yëpp nekk ñu ñoo ko njëkk def parce que centre de formation professionnelle yépp nga koy def mais ñun lan leen wuuteeg ñoom ñun den fekk ji nit ñi ñun lan leen wuteeg ñoom dañuy fekk jigéen mu xam ne par exemple day sëy ne ko yow de mën neen la jàngal mm-hmm. mun la ah man de caam bëgg naa jàng mais sama aw ma ku ma jàppale si kër gi mm-hmm. ñu ne ko du lundi su nekkee am nga jot si suba si mun nga ñëw jàng si suba si mm-hmm. soo amul jot si suba si su nekkee douze heures seize heures am nga jot mun nga ñëw jàng si douze heures seize heures soo amul jot heure boobu su nekkee nag seize heures vingt heures am nga jot mun nga jàng mun ma caam daal damay jàpp mu ne ko samedi dimanche soo soo soo amee jot nga ñëw jàng si kon nit ki di nga ko tujjul waxtu mm-hmm. muy ndaw goo xam ne dafay dawal jakarta mun na dawal jakartaam ba wàcc ñëw jàng si mm-hmm. jigéen buy sëy tamit mun na toppatoo borom këram ba ngoon jot ñëw jàng si mm-hmm. ñetteel bi tamit état du Sénégal ak lëkkaloo bu mu lëkkaloo gouvernement Luxembourg soo wax ne dañuy fekk nit ñi mais vrat Sénégal nekkul fépp moo am fu mën a jàngee dafa am outil yu xam ne lëkkaloo bu gouvernement Sénégal lëkkaloo gouvernement Luxembourg lii sa technique yooyu mooy wax den am lu naan fukk oto ak juróom yu xam ne mun neen ñëw ba si àll ngaay bii nii sax wala àllum kaañ bii nii gaare fa mhm. former nit ñi plomberie ndax matériel bu nit ñi soxla yëpp mu ngi si biir mhm. ñu nag oto yooyu nag leen lëkkaloo gouvernement Sénégal di remercier bu baax ministère mhm. de la formation professionnelle et technique bu ñu yombalal suñu jëflante ak liise yi outils yooyu la ñuy utiliser di fekk askan bi di la ñu loolu daal moom nekk suñu suñu loolu la ñuy def am na solo euh, Momar bi ñu ñëwee fii sàng dañu fi fekk ay élèves yu bëri ñu toog fii macha Euh, ndax élèves yooyu yi toogan fii bu ma déggee ni ngay waxee est-ce kon euh, daa mel ni kenn ku ci nekk li nga ñëw wut si fii bokkut ak euh, maanaam dafa kenn ku nekk sa matière bi ngay jàng. waaw élèves yi nga fi fekkoon yëpp nag ñoom ñëpp ñu ngi dem def la même chose xam nga fi nga ma fekk nii tamit lii tamit damay remercier tamit le directeur général Cheikh Bakhoum boo xam ne muy Senem SA moo ko jiite. te tamit mu nekk une société pour instant étatique boo xam ne moom moo yor service informatique de l'État. di permettre nit ñu xam ne dèjà da nga dem jóg di wuti sat euh, di wuti extrait de naissance soo ñëwee fii ñu wutal la ko. Mm-hmm. yow mu dem jóg dem Dakar di wut tamit euh, euh, sa sa bac sa diplôme bac soo ñëwee fii tamit mun nga ko wut. Mm-hmm. na kayit yu bëri nit ñi dem wut di déplacé wu léegi si 46 départements yi foo dem mun nga ko am. même soo soxlaa def formation mun nga ñëw am salle bu mel nii. Mm-hmm. ñooñu nag bu ñu waxee ne dañuy def activité ñu ne ñu ne yéen ñoo bokk lu ñu def. parce que ñun lu tax fekk ñu implémenté wu si 46 départements yi def si service bii nii. pour jege askan gi ñu mën a def formation la kon lépp lu xeetoog formation xarala yi lu mel ni informatique wala cours de code yi moom nga fekkoon candidat yi di def ñu ngi fekk ni cours de code leen dem def ñu dañuy préparer pour ñu passer examen bu war a am Thiès si mois de octobre bi moom nga ñu fekkoon instant ñoom ñu dem assister. voilà euh, dégg naa nga ne sàng Sénégal euh, maanaam dafa metti ci biir wax ji ndax euh, élèves yi nga xam ne ñoo nekk ngeen ngeen leen di defal formation ñoom dañuy fay seen monta fay euh, woyafal ngeen ko ba nga xam ne ñoom dañ leen di ñime parce que comme ne nga Sénégal dafa metti euh, ca yow fu nekk ngay dem di defal nikki formation di ko jàngal ndax itam foofu sa loxo dina fa dina fa woyof bu baax waaw formation yi nag formation yu ñuy instant yu ñuy fay la te Sénégal mit na mit boo xam ne soo laajoon nikki ki mille par mois sax ñun xam nu Sénégal bindoo jamono métti na bu xam ne am nañu xam ne am nañ jafe-jafe fay ko mais nag ñun suñ approche dafa wuuteeg yenn ay échange approche dañ boroom kër goo gis suy fay junne doomam muy jàng sax jàppal ne am na lu mu bàyyi farata bu mu bàyyi kër gi pour fayal doomam mais benn yéene kese la si am su doomam jàngee ba pare mu jëriñ ko moo tax ñun bu ñu bay tënk tëgg formation yi den nat mënoon nañ jël formation yi def ko ay pàcc-pàcc jàngal xale bi te du pare. Mhm. jàng na mais yéene bu taxoon papaam sacrifice wu du par exemple du mat. Mhm. yombalal nga ko mais du mat. Mhm. moo tax soo xoolee formation bu naan administration. xam nga da gis ñu bëri ñu naan mun neen def informatique initiation informatique. mënoon neen def initiation informatique den ne d'accord ki na nga ko jàngal informatique. na nga ko jàngal technique d'expression mooy nu muy waxee. na nga ko jàngal tamit gestion de caisse nu muy gérer tamit trésorerie am. ko jàngal tamit nu muy bindee technique de rédaction document administratif. su paree mën a xëy kon ñun suñu jubluwaay xëy la. mais am na bu des de dégg naa nga wax. maa ngi ñëw si coup yi mais dégg gu ma togg de togg dégg gu ma togg am na si am nañu cuisine pâtisserie. te boobu moo si ëpp solo parce que cuisine pâtisserie souvent ñun xale yi ñuy jàngal danañ jàngal boo xam ne suñu paree sa mën a daaj table mën a liggéey parce que ñun suñu formation benn objectif la am mooy jàngalu nit ko xam dafay ñëw di théorie mais nit ko xam dafa ñëw demal boppam. Mhm. parce que man maa ngi benn exemple xam ne Sacré-Cœur dama koy jox ay jëkkër ak jabar leen neem rek la ñuy jaay jëkkër ji moom mooy defar pat bi jabar ji lakk jaay te si la ñu suturloo te doomu aadama yi nañ leen jox métier yu xam ne suñ paree dinañ mën a suturloo soo xoo ñu su formation yi amul théorie mooy li ko xam ne su paree dina mën a liggéey mm-hmm. léegi nag coût bi nag xaw na seer mm-hmm. peut-être ni koy nit ñi parce que su ma naan xaw na seer mm-hmm. da nga koy nattalee par rapport au prix mais nag xam nga jàngale togg moom nu mu toll foog naa yéen ñëpp ay ñun ñëpp ay borom kër leen dañuy dañuy dañuy joxe dépense marché métti na donc coût yi cent vingt mille mais dañuy bi mu fay ko si ñeenti tranche cent vingt mille par weer non formation bi trois mois trois mois yëpp waaw kuy formation moo nekk cent vingt mm-hmm. mais nit ki dañ koy permettre su inscription joxe mu joxe trente mille su jàngee weer joxe trente mille su jàngalaatee ñaari weer joxe trente mille su demee ba pare tamit suy jël këyitam joxe trente mille yi mm-hmm. waaw loolu daal ñun moom la ñu defee formation yi waaw Momar tey Pa Omar Pape Omar gay mii tey bu ñëwoon ne la euh, Momar Thiam man dama bëgg a jàng mii sama papa amul moyen sama yaay amul moyen man awma lu ma faye kooku nu ngeen di def ak moom waaw kooku am na nu ñuy def ak moom état tamit am na nu am am na nu mu def ak moom hmm. parce que état tamit teg na si bànqaas bu mel ni 3FPT boo xam ne dèjà moo nekk lan moom temps yi yéen a gis enrôlement yu doon am hmm. mooy xale yu xam ne dañ bëgg def formation initiale mu mayee plus de 2000 bourses moo nekk lan xale bu xam ne da nga bëgg a jàng hmm. soo ñëwee da nga ñëw tànn si école yu xam ne moom nangul na leen soo fa tànnee soo waroon fay téeméer soo waroon fay cent mille quatre-vingt-dix mille yëpp moo koy fay moom dix mille yow yow dix mille ngay fay. ngay fay xam nga loolu am na. Mhm. lu mel ni 3FPT nag lëkkaloo neen moom si ay formation yi yoo xam ne defoon nañ ko daaw ànd demoon ay Kédougou yooyu noonu. mais su loolu noonu su boobaa. Hmm. kooku noonu duñ ko laaj benn benn document. déedéet 3FPT de 3FPT dafa am parce que maa ngi def seen publicité samay partenaire leen. Mhm. mais xam nga tamit soo amee structure bu xam ne. vraiment te ñun benn objectif la leen am quoi yombal nit ñi jàng. Mhm. te suñu gisee am na kenn xam ne foofu nit ñi jaaree rek mun a accéder seen formation yi parce que nu ma ko waxee jamono dafa dafa métti. Mhm. dañ la ñuy pousse ñu dem foofu noonu. parce que tey ni kooku 3PT naan même soo jàngut même nga nekk jigéen am na partie bu xam ne sax pour ñu xam ne dèjà seen papa dafa génn àdduna wala ay veuve kese lay gérer. Mhm. même ngeen nekk GIE yi ay femmes mun dem nga ne ko a jàng. moom mu financé. xam nga kon loolu noonu ab yombal mu ngi fa. nga ne yow ndaw bi tamit. même su nekkee formation formation yi mooy formation yoo xam ne ba licence 3. Mhm. mais comme ñun formation courte durée yi ngay def nii su paree nii da nga gis fi ak ñeenti weer. Mhm. dina lancer ay formation yoo xam ne mu ngi ko tuddee des CPS quoi des certificats professionnels de spécial yoo xam ne mu nekk ay diplômes yu état reconnaître. Mhm. boobu soo ñëwee tamit noonu la demee da nga nekk da ndaw ji da ngay ñëw. niveau CM2 rek soo fa yemee. ne dama bëgg jàng métier. su xoolee sa dossier da ngay def demande ndax na mënut a may ñëpp su nangoo dossier bi soo waroon fay foofu noonu téeméer cent mille. yow quatre-vingt-dix mille moo ko fay yow dix mille kese joxe. Mhm. loolu nag su paree nag mairie yi tamit ñu ngi góorgóorlu si askan gi parce que man def naa fi ay activité yu xam ne comme xombal maire Magoy Boy moo ko financé def naa activité pas le maire parce mun naa citer beaucoup de maire. Mhm. def naa fi jàmm gën si kaw mbaaw maire bi moom moo financé daaw activité yu ma def si ci biir Sénégal yëpp maire ñoo ñëw dugal seen loxo donc. mais tamit parfois tamit même ñu ñooñu suñu góorgóorloo yëpp am na ñoo xam ne tamit duñ am sens mhm. to dal si ñooñu mm-hmm. suñ ñëwee tamit dina jéem a xool ñun ñu leen leen yombale mm-hmm. parce que am na ñoo xam ne dañ leen defal réduction cinquante pour cent mm-hmm. voilà noonu daal lañu jëflante waaw Momar yëngu-yëngu yi ngay def nii formation bi Sénégal rek la yem wala xalaat nga bis ñëw euh, nga génn Sénégal di ko fa defi waaw xam nga nag ambition yi mun na si moom si moom mun na rëy te tamit euh, mais nag mun ne ne jéggi neen un peu Sénégal demagun Sénégal mais jéego yu ñuy def biir Sénégal tax na ba xam ne tamit euh, ministère de la formation professionnelle oto yi ñu xam ne gouvernement Luxembourg dañ lëkkaloo mu jox leen ko bu mu ko bëggee jox gouvernement bu Côte d'Ivoire bu ñu ñun leen leen indi pour ñu wax leen ñun nan la ñuy loolu sant yàlla ndax nekk société bi xam ne yéen ngi jéem jéem boobu noonu instant ñuy def ay impact ba ñu war ko def si beneen dëkk dëkk boobu ñu leen ah may nañ ko waa Sénégal de jàpp liggéey neen seeg waa Sénégal ba dox na mais nag bu muy dox de yàlla def na ne am na ñu xam ne defoon neen seen loxo dem leen waxtaan ak ñoom ñu wax leen fi ngeen ñuy jaar. Mm-hmm. kon xam ne kon ambition yi tamit ñu ngi xalaat tamit dem lëkkaloog yeneen dëkk si Afrique de l'Ouest wala boog si monde bi. Mm-hmm. pour que genre programme yi parce que problème ndaw moom en Afrique ñëpp la. Mm-hmm. te ndaw yi moom yàlla dafa def ne en Afrique ñu am une population jeune te ndaw moom ñaari kaar moo fi am soit mu nekk euh, mu nekk un facteur de développement wala mu nekk un de sous développement. ndaw kañ lay nekk un facteur de développement mooy muy contribuer sur le développement du pays. Mm-hmm. te ndaw boobu pour mu mën a développer sur le développement du pays day fekk mu am métier. Mm-hmm. mais ndaw su amul métier moom état koy yor te ñun nag si loolu kese leen jublu mooy nan la ñuy fexee ba ndaw ñi mënal seen bopp. mais ndaw boobu nu ko état di yore. wa parce que état nan lay yore par exemple instant yu ndaw bi moo nekk lan benn ndaw su liggéeyul état il va mettre des moyens pour de sécurité parce que nit su toll nu mu war a toll liggéeyul. agression bi yokk su liggéeyul vol yu yokk banditisme bi yokk su liggéeyu tamit instant yi nii si boppam état tamit si boppam parce que état moo am une obligation même ñu liggéey ñu naan chômeur dañu am qualification mooy képp ku nekk fii nii rek sa nekk nag essence si loxo état la nekk. Mm-hmm. kon su nekkee te état bul fàtte yorul ay milliards man lu may joxe ak yow looy joxe moom mooy poche état. état nag yor ko xam ne lu mat junney nit junney nit yooyu ñetti kese ñoo koy cotiser ñooy par exemple ñooy cotiser mm-hmm. mais affaire bi la neen état teg si état di la war leen toppatoo mm-hmm. joxewun état war leen yor mm-hmm. moo tax ndaw boobu moo tax ñu ne Afrique problème yi Afrique bu gën a mag mooy jeunesse am parce que mun pour jeunesse boobu noonu nag mun na jëriñ Afrique mais pour mu jëriñ Afrique il faut jeunesse boobu noonu di contribuer mais jeunesse boobu pour mu mun a contribuer avant muy laaj xëy jeunesse boobu day fekk moom mun a dem xëy tey sa oto bii nii tey soo koy dem joxe nit ku su présenté wul permis mën a dawal di ko mën a dawal. Mm-hmm. kon kooku moo xañ boppam xëy. Mm-hmm. moo tax ñu ne ndaw ñi ne leen joxe ji métier nit su amee métier rek à tout moment rek métier boobu noonu mun na ko jëriñ. Mm-hmm. waaw Momar e, élèves yi ngay am yëpp nan ngay def ba am leen e, da ngay dugg ci terrain bi e, di présenté wu di leen convaincre wala yow ci say ci sa machine bi rek ngay amee élèves yi wala sa ay collègues. waaw yàlla dafa def na tamit bu ñu defee euh, euh, euh, ay ndaw leen nag at yu bëriwut mm-hmm. mais Sénégal nag ñu ngi koy commencé xaw min tuuti mm-hmm. daaw bu ñu demee li xam ne Sénégal nga génn daaw ma génn def Saraya def Salimata def Bakel def maatam wër Sénégal ma gis nu mu bindoo laa xam ne Sénégal soo si bëggee liggéey tamit te lu ñu wax nii tamit ñu bëgg a laal Sénégalais yëpp il faut ñu fekk ji leen. Mm-hmm. c'est la société bi jëlee décision lëkkaloog service état bu xam ne. mu ngi présent ci 46 départements yëpp te ñoom vraiment ñu ngi ñoo ñuy jàppale si communication bi mhm. mais tamit ñun bàyyiwuñ leen ko rek weer bii le 2 octobre bii ñu génn recruté naa 14 personnes affecté leen sur les 14 région 14 personnes yooyu kenn ku si nekk chaque région bi nga nekk yow yaay piloté yow yaay tamit doxal instant yi activité société bi foofu mais 14 mais 14 yooyu ci sa biir ci sa biir la nekkoon. sama société la nekk. sa société la leen. mais li tax ma la question boobu sànq damay gis ay jeunes yu bari dañuy jàng ba pare teg seen i këyit. mais xam bu ñu xëyee ndeysaan amuñu liggéey la ñuy def mooy dem ca koñ ba teg seen baraada teg seen ataaya est-ce que léeg di ngeen waaxu dem ba ci jeunes yooyu waxtaan ak ñoom parce que dafay baax ñu mel ni yéen euh, di di gindi jeunes yooyu nga xamante ne tey euh, dañuy bu ñu xëyee jàng nañ ba pare mais seen gis-gis mooy euh, ca bureau ba direct lañ war a dem liggéey ndax seen yooyu itam eh, di ngeen jekki jékki ngeen waaxu ba ci ñoom eh, waxtaan ak ñoom ci lu mel ni ngay def. waaw eh, sëñ Baye jërëjëf xam nga nag ku jekk ak ku jub mooy conseiller mais dineen jéem a laya layarante biir ndax ndaw leen mu ñoom ay leen man ndaw laa. Mm-hmm. te tamit nit ku si nekk rek am na lu xam ne moom moo ko tënk mais dinaa joxe sama xalaat si mbir yi ndaw ñi. Mm-hmm. man suma si sama xalaat moo nekk ñetti mbir moom moo téye ndaw ñi. mooy euh, benn man dama naan ñett at ak nii maa ngi gis état du Sénégal dafay bloqué exportation gerte mooy kon gerte léegi ku ko bay ñu jënd ko. Mhm. te soo génnee fii di tukki fii ba ba ba Tambacounda. Mhm. àll kese ngay gis. Mhm. kon ndaw ñi kon war neen xool nu ñuy delloo si suuf si. parce que te gerte tamit yàlla def na tamit du ma baykat mais am na benn année boo xam ne ma bay gerte. Euh, bu ma si defee sama alal. lu mu génnee dama tiit dama ne ah kon suuf nag te lii lay joxe. kon am na ndaw ñu bëri yoo xam ne tey jàng ne mais pour ñoom la comme ni ma ko waxee mbiru a def. Mhm. loolu muy benn ñaareel bi tamit société yu bëri tamit joxun occasion ndaw ñi loolu tamit dañ koy wax parce que ndaw su génnee nga ne ko balaa ma lay jël il faut nga am juróom at expérience expérience moo lan. Mhm. yow soo defee noonu sa morom def noonu du ma sa am expérience nag kenn mooy def exception jox ko mu jaar fa wane boppam ay njuumteem ñu corriger ko mhm. mu demaat beneen yoon. foofu lay jaare am expérience mais ku nekkee ndaw dafa génn yor diplôme nga ne ko tant que amoo jaaroo nangam te yow nga def noonu sa morom def noonu fan lay amee expérience ñetteel bi tamit mooy euh, ndaw yu ñu naan instant par exemple xam nga joxoñ ndaw yomb na. Mhm. mu teg attaay am. Mhm. teg caay na mu toog si kër gi. Mhm. soo xëyee cinq heures 6 heures du matin wala boog nga am dara loo bëgg a defaru ndaw moo la koy defal sa kër soo bëggee débouché ay booy ñoo ñëw débouché la kër gi. soo bëggee peinture ay booy ñoo ñëw peinture la ko da nga ñëw teg sa gravage ñëw na la grand est-ce que li mun naa la ko bubal pour wut dara nga xam ne ndaw ñu am leen jom. Mhm. dañ leen jàppaleegut. Mhm. kon avant li nañu joxoñ neen leen jàppale. Mhm. jàppale moo nekk lan neen leen wóolu dénk leen loolu na moo si manqué neen leen wóolu dénk leen. suñu leen wóoloo dénk leen rek yàlla xam na ne xool 5 heures 6 heures génnal Sénégal Dakar day mel ni bëccëg. ndaw yëpp génn nekk si car rapide yi dem si port yi ay journée mille cinq cent journée deux mille nga xam ne ndaw yooyu am nañ jom kon politique état bi leen war a gën a xoolaat rek nga ne ndaw ñi xeebun xeeb duñu xeeb xam nga dañ ndaw ñi dañuy xeeb ndaw ñu xeebun ndaw bu xëy di dàqante ay journée mille cinq cent mille six cent kooku xeebut mais kooku yaa koy encadré état lan mooy mooy liem instant encadré leen financé leen yooyu yëpp politique yooyu yëpp am na mais ñu fexe tamit ba mu jëm si ndaw yi ba mu yegg si mbay ndaw ñi ñu fexe tamit instant ba mu yegg si baykat yi. Mhm. loolu daal laa si amoon lu ma si sama gis-gis. waaw parce que loolu nga wax noonu am na solo mais damay gis souvent état euh, comme ni nga wax noonu euh, suufa Sénégal ni mu baree nga xam ne tey ñun lu ñuy lekk daanaka lu ñuy naan sax laa lu ñuy lekk di ko naan dañ koy jëggaani suuf si nekk fii booy xool département bu nekk walla région bu nekk ña dëkk ña ngay jaay seen suuf. est-ce que xalaat nañu encore seen yooyu état est-ce que xalaat nañ ne bis dina ñëw suuf soosu nga xam ne tey kenn ku nekk région ba nga dëkk wala dëkk ba nga dëkk nga koy jaay est-ce que xalaat nañ ne ëllëg dinañ dem ba dootuñu am fu nu bàyyee Momar waaw loolu nag du ma ko encourager mais tamit su nekkee ay suuf daf nekk ñu fa nekk ba liggéeyuñ ko ñu jox ko ñu bëgg liggéey. mais jaay bi laa wax. non philosophie bu ma nekk man personnellement man damay wax sama xalaat yaa ngi dégg. yow sa baay munta am suuf mu nekk sa suufi maam sa maam ba ba ngay juddu sa baay juddu yéen ñëpp bay la ñuy def suuf soo si nekk foofu noonu yow soo ñëwoon bay ko kenn du ko ñëw du koy fàq ba koy yóbbu feneen waxuma dañ ko war a jaay nag ça veut dire waxuma dañ ko war a jaay affaire man sama principe mooy man dama gëm principe de concurrence mhm. mooy nit ñi si boppam mooy état moo war a def politique de nationalisation quoi mooy doomu réew mi d'abord mhm. mais doomu réew mi tamit suñu ñëwee ñoom ñooy ñëw nañ den bëgg xaccoog ñu xam ne dëkkuñ si réew mi état faral ñu dëkk si réew mi jox leen mais su doomu réew mi nekk wanoo nga leen kaay jël seen suuf si ñu ne soxlawuñ ko kaay leen bay ko ñu ne ko man Momar Thiam man mu dëkk Saalum ñëw Tamba laaj ko mais yow waroo am looy ñaxtu en tout cas coow boobu bari na fi waaw coow yoon en fait mais nag dañ naan tamit xam naa fi ngay waxee mais dama waxee si benn wàll bi pour wax tam ñun dénk lu leen dénk dañ leen ko dénk moomun ko waroon ko caxar-caxaree dégg naa baax fi nga waxee. Mhm. ay mbiru suuf tamit nekku tamit ñee da nga ko jëlul léegi rek parce que ku njabootu nit da nga la ñu tane xale di nga ko wax moom tey léegi du dégg mais waroo ko sanctionné mën nga téye suuf soo ëllëg nga muñal ko. Mhm. être un peu endur et soo ko mayee benn at. Mhm. ñaari at wala nga woo ko benn bool si nga ne ko waaw man de dama bayoon fii xaar bëggoon nga maanaam bëggoon nga wàqil ma ko rek nga ñëw instant booy jaay xaalis boo ko booy jaay xaalis nga woo ko mu teew. su déggee koppar bi benn yoon leen la bàyyi bàyyi ma ñëw bay xaal bi mm-hmm. en fait ñu lu ma lay war a jàng ñun xale yi dañuy mag ñee ñu war a jàngal mm-hmm. parce que tey xale boo su woo xale ñun ñëpp te te si bon tekk rek la ñu wër mm-hmm. dañuy yaakaar ne suuf si am lu xam ne mënuñ ko jox léegi ñun suñu papa yi ñoo ñu si war a xiirtal pour que ñun ñu par exemple pour ñu ñeme ko parce que suñu ñëwee bay ñu ne dafa méet mais ñu bàyyi bay bay góob gerte gi ñu pare nga woo ma ne moom war caam kaay takkal sama saako yi bay waa ji ñëw gis ma jox xaalis ma nga ne ma yaa gis de waa ji de fay na ma un million wala cinq cent mille moom mu gis coono bu muy daj dakaar mënul am loolu noonu bi ne la papa déwén bàyyi ma tool bi nii parce que dama bëgg a ñëw bay loolu nag politique yooyu noonu nag muy état soo dama jógee si kër gi rek ñoom ñooy wan xale yi xale yi dañ leen war a omot ñun xale yi mag ñee ñu war a omot wan ñu parce que ñun suñ teg suñu bët bi rek leen yaakaar foofu la te parfois mbir mi du foofu mm-hmm. léegi mag ñi ñoo ñu war a wan ne nag mbir mi fii la nekk avec une pédagogie. Mhm. su ñu ko defee avec une pédagogie rek incha allah mbir mi instant mbir mi mun na jàll. Mhm. waaw loolu daal moo si nekk sama xalaat. Mhm. parce que saa su nekk rek euh, dañuy gis tey li xew Sénégal muy lu tiis muy lu metti dañ ko ciy boole ndax euh, comme dañ koy dund su ñuy def émission yu mel nii dafay baax ñu di ko waxaale euh, gën a delloo ci sën yi parce que boo gisee clandestin bi xew nii jël gaal yi. Euh, ñu baree bari di ci faatu euh, jàpp naa ne tey état Omar Momar bu fekkoon ne day financer jeunes yi ne leen kat sën bu ci nekk da ngay wax sa procès boo ñëwee ñu jàppale la yaa xam procès boo bëgg mais dafa mel ni Momar loolu réer na wala lool bu ko état dee def ci wàllu jigéen ñi la ko ëppale parce que man li ma li ma gis laa laay wax parce que sama dëkk ba ma dëkk euh, état ñam fay gën a dimbali mooy jigéen ñi parce que dañ leen di jox kenn ku ne cent mille deux cent mille deux cent cinquante mille ñuy dem di jënd ay keccax jënd ay gejj di jaay bu ñu jaayee euh, buñ bu dee junni bu ne ñu teg ci téeméer ñu defee ko noonu est-ce que Momar buñ bu bu état doon def noonu ci jeunes yi ngay euh, est-ce que li xew nii di dina xew. waaw mais nag foofu damay euh, corriger rek xam nga Sénégal bànqaas yooyu yëpp am na bànqaas yooyu jàppale ndaw ñi am na. xanaa kañ état war a xoolaat bànqaas yooyu noonu seen doxalin ak ñu ko yor parce que dèjà mënoo teg ay bànqaas pour jàppale ndaw ñi teg ay bànqaas pour jàppale jigéen ñi teg si luy xew di xew nga war a xoolaat ne waa bànqaas ma teg nii ñu ñu war a doxee ñu ngi koy doxee xam nga yaa ngi wax léegi kenn xam ne bu ko dafa bëgg a jàng amul lu mu fayee mu ne pourtant am na bànqaas boo xam ne ku bëgg a jàng mënul sa doo fay mais est que ñu xool ñu bëri ñuy jooy ne mënuñ fay su nekkee ñuy jooy naan mënuñ fay dafa bëri ñu war a xool ndax bànqaas boobu mu ngi dox ñetteel ba état teg na benn bànqaas tamit bu naan fonds yëpp mhm. danaa la yow soo amee projet mhm. mun la banque yu bari duñ la wóolu parce que garantie yu ngi lay laaj amoo ko mhm. te waxtu bu ñu lay laaj pour nga fay ko par exemple doo ko mën te taux bu ñu lay laaj tamit mënoo ko état teg bànqaas bi xam ne mu ne soo ñëwee moom mu xool projet bi moom mu garantie la am na mais su nekkee loolu ba léegi tamit ndaw ñi ñu ngi am jafe-jafe ba léegi tamit déjà pour liggéey mais ñu xoolaat banque bànqaas boobu xoolaat bopp ne moom politique bu mu am ndax mu ngi dox wala doxut xaw na comprendre fa waxee quoi. Mhm. nga ñëw lu mel ni tamit état ne waa tamit ne bànqaas boobu soo doyut garanti mais mu teg beneen bànqaas bu naan deer ne yéen soo leen amee projet man état ma defal la taux 5 pour cent mu commencé comme jigéen ñi ay nano deer am na yu tuuti commencé cinquante mille cent mille. Mhm. ne su ko na too na tey xool ne la ndaw ji amal projet rek soo amee projet dèjà moom su ko xoolee moom mu financé la te li ngay fay bëriwut mais su nekkee yooyu noonu bànqaas yooyu noonu yëpp am na. Mm. yii jëm si ku bëgg a leb état yombalal la. ku soxla xaalis état jox la te malgré sa phénomène instant yi ndaw ñu di jooy ne gisuñ xëy gisuñ financement. Hmm. état war a nag def lël xoolaat banque wala banques yooyu def lël xool seen bopp. ndax si mbir yi fa war a jëm ndax mu ngi fay jëm ak nu muy doxee ndax baax na. Hmm. mais bànqaas yi am na maa ngi lay xamal ne bànqaas yi war a doxal réew yëpp am na si réew mi ñu war a xoolaat doxalin bi. kon loolu lan mooy problème bi foofu. waaw xam nga nag man néew ma ab politicien moo tax genre noonu du si du ma si du ma du ma si mën a sori. Hmm. ñun su nekkee formation ñun man suñu société nekkul ay ni par exemple nii liste mooy ñu naan dara doxut dañ naan lii am na bànqaas manqué wu si Sénégal mais doxul ni bànqaas yi leen war a xoolaat léegi nag lan moo nekk problème bi nag ñoom leen dénk ñu doxal benn at ñaari at mm-hmm. te heure bu ñu génnee ndaw ñuy yooxu mm-hmm. mais ñoom ñu war a xool léegi déjà am nañ ay mécanisme yoo xam ne yu leen permettre par exemple yu ko natt xool ne ndaw ñi nii lan leen jooy parce que ñoom joxe neen sañ xaalis dinañ génne ay chiffres ne financé neen suñ paree ne ndaw ñi ne gisuñ dara mais ñoom suñ laajee ndaw yooyu dinañ leen yéen xanaa yëgoo leen nangam ñu def ay étude dinañ xam fu mu war a jaar su nekkee yéen a def lu baax rek dina si am dinañ ko mën a corriger. Mhm. kon loolu rek laa si wax. kon mhm. ne ñoom kenn ku si nekk cër bi nga féetee soo ko matee rek réew mi instant yi dox incha allahu rabi. Mhm. voilà waaw Momar euh, jamono ji yaa ngi def euh, lël fii ci Mbour euh, boo jógee Mbour fan ngay dem. waaw man nag damay coordonné tey euh, dama ñëwoon tey juste fekk fii sama représentante bu xam ne moom moo nekk région de Thiès. Mhm. muy madame Goudiaby je le salue au passage. Mhm. mais tey jii ma lay wax nii tamit au niveau de Linguère def nañ fa formation. Mhm. Euh, démb présenté nañ ay candidats au niveau de Fatick Gossas. am nañ candidat tamit ñu ñuy préparé au niveau de Gën gi neew kon jàppal ne. ñun suñ formation yi dafa jublu ñaar xam nga am na fonctionnaire yu bëri soo leen affecté si àll bi du nangoo dem. te soo xoolee àll bi moo gën si ñoom ndax si lañ gën a dépenser moyen mm-hmm. mais lan la ñu sóoraale suñ demee lépp lu war a indi lu yokk yokkute si ñoom duñ ko mën a def mm-hmm. parce que suñ bëggee jàng fu nekk sori na amul courant duñ ko mën a def suñ bëggee yokk sañ xam-xam wala def ay recherche fu nekk sori na ko mën a def mm-hmm. suñ bëggee wut permis sax pour certaines raisons dama la jox exemple bu gën a ndaw nga jël lu mel ne Tamba ak Bakel la wala nga jël ay dëkk yoo xam ne dèjà ñu ngi nekk ay trente kilomètres instant si àll bi enseignant bu nekk su wutee wut permis bi nan lay bàyyee classe am ne ñu ngi wut ci ñoo wut permis si biir dëkk ñun nag ñooñu la ñuy fekk ji mm-hmm. dañ naan enseignant bi soo bëggee am permis soo leen matee fukk sa si biir dëkk ñun mun neen si ñëw dëkk bi instant yi former leen kon ñun suñu yéene nekkul question permis ñun su yéene denn Sénégal ñëpp si leen bokk te tamit nit fu mu warta ta nekk mm-hmm. warta suru waayam mm-hmm. ak tamit ñàkk jàngam wala jigéen la day sëy ba xam ne moom lu mu war a cër bu mu am si réew mi instant yi cër boobu noonu du ko jot. Mhm. kon di ñaan rek instant yi mooy direction des transports terrestres euh, régional yi suñu agent yi ñu ngi fi. Mhm. ñu nekk pour ñu gën ñu accompagner accompagnement bi moo nekk len ñoom ñu ñëw soytu parce que nit ki soo koy dégg doo xam lu muy def. Mhm. mais soo ñëwee yurdu lu muy def. si ngay doo ko sawar ndax di nga ko jàppale wala doo ko jàppale. ñun ñu ngi defee suñu formation au niveau si 46 départements yi. ngeen ñëw ñoom ay ingénieur la ñëw natt suñu liggéey seen liggéey suñu doyee dèjà ñaan leen seen ndimbal ndax ñoom suñ ci jàpput liggéey bu ñuy def nii du mën a dox ci mbiri permis yi liggéey bu mel noonu tamit instant comme ministère de la formation professionnelle su si jàpputoon dul mën a fekk ji nit ñi parce que jumtuwaay yu ñuy defee ñoom ñoo ñu ko jox mhm. tey formation bi ñu defee si 46 départements yi su si Senim SA jàpputoon tamit du nga ko mën a def mhm. kon Sénégal pour mu dox ñëpp si war a jàpp mhm. kon ñu ngi ñaan instant yi ñëpp dugal seen loxo rek ñun tamit ñu gën a lu ñuy laaj ndaw ñi dañ leen koy oyofal xam ne dëkk dëkk bi dafa naqare. jaajëf Momar euh, ndax euh, ma am fu ma laaj ndax ki nga xamante ne da ngeen koy fekki euh, raison ak raison ak ki nga xamante ne moo nekk Mbour wala Dakar ndax ñoo yem fay. ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñuy fay amul benn différence ñoo bokk lu ñuy fay. Ah, amul benn différence ak ki nga xam ne itam dafa bëgg ngeen defaral ko permis même même prix bi la. waaw xam nga de nee naa la defal per mooy ku ñuy formé ji ku ñuy ku ñuy formé mbuur ak ma jox la ñaari dëkk rek ku ñu formé ji gën gi neew ak ku ñu formé ji Kaolack ak ku ñu formé ji Mbadoxun wala benn dëkk bu xam ne déjà village. Mhm. ñi ñu fekk ñëpp ñoo bokk lu ñuy fay ak tamit même mode de fonctionnement la ñuy fayee. Mhm. ñoo bokk lu ñuy jàng mais nag du ma wax ñoo bokk condition yi ñuy jàngee xam nga fi yaa ngi si salle bu ñu climatisé. Mhm. mu neen dem dëkk bu xam ne école la ñuy am comme ñi tey ñu ngi nekk. ci benn ay sàkket wala ay sàkket te ñu ngi si benn dëkk bu xam ne ñu ngi formé nit foofu lu mat 15 jeunes pour mu ne si ay jeunes. d'accord mhm. benn sa candidat dëkk bu naan Oudugar mu ngi nekk 39 35 kilomètres de Sédhiou. Mhm. ñu dem fekk fa ay nit ñu xam ne di la ñu former pour ñu am permis mhm. te loolu noonu déjà loolu mooy instant parce que nit ñooñu si nit mi leen bokk. voilà mais fu leen formé benn école élémentaire leen jël. defee ko conditions yi mais suñ sañoon nag am conditions yu meilleures waa Mbour lu ñu def cour de compte ñoom moom la ñu def si cour de compte lu waa Mbour di def cour de conduite moom la ñu def ñoom cour de conduite tamit. xam naa li ñu dese ci ay minutes bariwut seen ay seen ay moyens bu ngeen koy jooy yan yan jafe-jafe ngeen am yan jafe-jafe moyens ngeen am pour état man leen ko jàppale seen ay déplacement waaw déjà suñuy jooy moo nekk lan mooy leen rek la ñuy jooy ko mooy nit ñi bëgg neen mais jamono dafa naqari te état moo leen wala uuf ne leen jàppale. kooku maa ngi si woo sama partenaire 3FPT moom xam ne moom la nekk fonds de formation professionnelle et technique mm-hmm. maa ngi si woo tamit ONFP muy office national de la formation professionnelle et technique mm-hmm. ak communes yi mm-hmm. parce que communes yi dèjà tamit ñu jàppale ndaw ñeeg jigéen yi ñu mën a former parce que financement ndaw soo ko joxee xaalis te te amul qualification te musta gérer xaalis da koy yàq kon ñoom ñoo si war a jàpp maa ngi woo tamit 3FPT ak office national de la formation professionnelle et technique ak banque bànqaas bépp si état bu xam ne rek mooy pour jàppale ndaw ñi ak jigéen ñi moo leen tax a jóg ak pour xeex pauvreté rek mm-hmm. kooku état kooku noonu dèjà suñ kooku noonu suñu ndimbal la mm-hmm. ñu ngi leen ñu taal loxo ñu ñëw déglu waxtaan suñu waxtaanee dèjà dinañ xam ñun lan leen si mën a def jërëjëf mm-hmm. hmm? voilà euh, Momar Thiam am na lu ma la laajoon keroog xam naa fi la ñuy fi la ñuy jaare nga tàgguwaale euh, am na lu ma la laajoon keroog ndax euh, damay ñëwaat ci oto bi ki ngeen jàngal oto ba mu mën a dawal jox ko permis ndax di ngeen ko jàngal ni ñuy ubbee capote bi ni ñuy desserrer pono bi crever cric bi. waaw xamoo keroog tamit nee naa la man benn ma am une honnêteté déjà instant yi ak tamit am une franchise quoi dama na loolu moom maa ngi la si sant di lay gërëm. Mm-hmm. malgré code bi am na yoo xam ne prévoir na ko su koy jàngal mais yow fi nga xóot ba sóodu noonu prévoir prévoiruñ ko woon. Mm-hmm. te am neen moyen yu ko def. Mm-hmm. parce que lycée technique yu ñu àndal dañuy def mécanique tey ñu jël benn suñu benn professeur instant mécanique indi ko mu ñëw wan leen ko waa ñun ñu dara. Mhm. mais xel boobu noonu keroog bu defee émission yow yaa ñu ko dollil. Mhm. pour wane si waxtaan kese la sottante xalaat di am. Mhm. si dollanteel tamit si lay am. moo tax man la tamit si ñu tijjilee rek ñu waxtaan am na ñun nii leen yaakaar la noonu suñ ko defee mbir réew mu dox. mais am na keneen xam ne suñ fa jaaree ki nga jox permis jàngal ko sax du xam fan lay ubbee capot oto bi ba oto bi tàkk ba jeex du xam sax fan lay tijjee capot bi euh, nga réponse foofu ca euh, tàggoo tàggoo waale waaw loolu moom dèjà mooy lu mu la wax rek incha allah boole nañ ko si mm-hmm. mooy te loolu yow lañ koy sante sañ Mbaye ba peut être néew woon jëm ba si mbir capot bi sax ne woon dinañ leen jàngal injecteurs yi nan la mm-hmm. parce que keroog si émission maa ngi lay tontu jéye bu amoon sa tiwaawoon bokk na si rapport bu ma benn journal de la place denn bu jéey bi amee rek fa nit ñi den afale daw mhm. suñ leen jàngoon ni ñuy utiliser injecteurs yi foog naa jéey boobu mënoon na bañ a am kon loolu noonu nit soo koy jàngal war nga ko jàngal tamit en cas de comme nu ma koy waxee wucca cac edewu mhm. muy war a comporté woo mhm. te loolu incha allah dinañ ko boole suñ formation yi su neexee yàlla Momar looy tàggoo maa ngi la ñuy sant encore une fois di gërëm euh, équipe bi ñu ngi àndal ñëpp ngi gërëm équipe euh, Leral TV ak euh, di gërëm euh, maam Oumilaay ak Cheikh Omar Gaye ak ak Cheikh Omar Gaye ak yow kii nii sëñ Mbaye mhm. ak tamit équipe Leral TV yëpp parce que occasion bi yombut ngeen may ñu occasion fekk ñu si Mbour ngeen ñu jox ñu occasion tamit ñu leeral tamit activité ñuy def te tamit di nuyu waa Sénégal yi ne APT société de proximité la te benn lenn nag moo ko tax a jóg mooy tasaare xam-xam fexe ndaw ñi tamit ak jigéen yi mënal seen bopp jërëjëf mhm. jërëjëf euh, kon lii lañ leen jëlsil woon fii ci Mbour euh, Leral TV def déplacement ñëw doon waxtaan ak euh, Momar Thiam dégg ngeen leeral yi mu leeral yépp kon mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di jaajëfal ba beneen yoon ci seen beneen numéro ku nekkoon ci caméra bi muy maam Oumy ak Cheikh Omar Gaye Euh, di jaajëfal nag euh, le directeur Birahim Touré di jaajëfal itam daam daam jee ñu ngi koy nuyu bu baax a baax madame Touré euh, di nuyu képp koo xamante ne nii rek yaa ngi foofu ci kër gi yaa ngi foofu ci kër gi di bay sa di ñaan yàlla nag tele bi doon ay télé tele di ñaan yàlla itam rajo bi doon ay rajo rajo ndax lii nag itam dañ ci sant yàlla bu baax a baax bi nga xamante ne dañoo ñëw ne leeral TV. kon leeral TV su defee déplacement rek fu mu dem dafay jëlee lu leer naññ kon Momar ñu ngi lay sant di la gërëm di jaajëfal waa diaspora bi di nuyu kilifa diina yi euh, maam Thierno Birahim noon na euh, nit koo gis rek am na lu mu gëm maam Thierno Birahim moom loolu la waxoon kon baatam boobu li mu li mu tënk dafa bari mhm. maam Thierno waaw borom sikkoor yi nee na nit koo gis muy dem rek am na lu mu gëm. Mhm. kon Omar li nga gëm dañ lay ñaanal yàlla. yàlla sunu borom defal ak jàmm kon ñu ngi leen di jaajëfal ba beneen yoon ci seen beneen numéro incha allah jërë ngeen jëf.